jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen ñu fi ngeen daan nuyoo si émission bi mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo ku ne jàmmaaloo nag comme ni ma koy waxee chaque jour xel ci làmb ku ne jàmmaarloo xel yi dem ci fans yi ku ne jàmmaarloo xel yi dem ci supporter ba leen beneen jàmmaarloo boo xamante ni mën naa ne bi dafa neex ndax bu ma nee général Malika xel dem ci lutte simple xel yi dem ci waa Yëmbal xel yi dem ci waa Buun ah xel yi dem ci waa Malika tamit. su ma ne fils de Balla xel yi dem ci Guédiawaye xel yi dem tamit ci Balla Gaye ndax euh, ay ndaanaan la yoo xamante def na lu ne ci làmb ba tax na tey ñu ñëw dajale leen fii pour ñu war a waxtaanee làmb ndax làmb ji mbokk yi bu ngeen xoolee depuis daaw la woon mais li di corona moo ñëw ak dooleem puus ko làmb ji waroon na jàll bu yàgg waaye nag lu mënu ñàkk faw mu am corona bu ñëwee yóbbu ko dañuy nangu xam naa ne nag fi mu toll nii moom léegi saison bii te ku leen gis ñaari mbir xool seen entraînement ñuy waxee xam ne pare nañu doon bés bu rek moo leen fi bàyyi ba tax na nag bu weesoo dañuy bàyyi ñaar ñu fan yi nag dañoo nekk ci tiis ndax am nañ suñu benn mbokk boo xamante ni Pape Modou Fall yàlla dogal na àdduna nekkoon foofu ci Europe demoon fa daani doolum xale la nekkoon sportif doon basket waaye yàlla yàlla ak pexeem jaam ak jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ba tax na ñoo ngi koy jaale seen ay mbokkam di ko jaale am di yi di ko jaale képp koo xamante ni passé la di ko jaale monde basket ndax xale la boo xamante ni amoon avenir am na foo xamante ni tolloon na fa waaye gis yàlla moom bu soxlaa jaam day ñàkk ba tax na ñoo ngi koy jaaree ñëpp ñu la bàyyi mu ñëw. waaw waaw yàlla bu si yonent bi ñu sant seen ñaari waajur sant kilifa diine kilifa aada sant sam waa dëkk waa Mor si nday si bàyyi gërëm waa Guèye waaye nag ñëpp maa ngi bëggee bu wér wér a wér salaam. maa ngi ah, maa lay fay sama sëriñ naan bisimilah rahmaani rahiim auzu billaahi mina shaytaani rajiim maa ngi sant samay ñaari waajur waaw di sant sama gaay sant ñëpp di sant sama waa dëkk waa Louga waa Fouta maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Boun waa Benn Baraak waa Malika waa Kër Massar ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di jox seen wàccuwaay ñu dugg seeg bismillahi rahmaani rahim ah. moom moo fi teewal ki nga xamante mooy général bu Malika. Ah, imam commissaire moo fi teewal bi nga xamante ni nii. fils de la fils de Balla. ba tax na tey bëggoon waxtaanee ci làmb ndax làmb dafa nekk làmb yoo xam dafa neex. Mm-hmm. damaa woo Ameth Ameth ne ma ak ah, ñooñu ay tapet lañ du ñu ñëw. mu ah, la ku la bàyyi amuñ fit ah Ameth. waaw noonu la demee de <laughs> parce que daw yi moom xam nga keroog woo nga ñu yow. lépp ñoo ngi teg action ah ñu départ ñëw bay bëgg a yegsi nga ñëw ne gars yi mënu leen jot mbër mi jotuma ko kóola mooy loolu xam naa daa day nelaw wala dara comprendre nga looloo tax quoi te tamit tëggoon nañ fi benn signature boo xamante ne jàkkaar laa doon sa waay ñëwul xam ak yeneen ak yeneen yoo xam mooy loolu mbër boo xasee ba nekk si contrat hmm. crise am mën naa ni promoteur bi yow yaa koy dimbali dimbali bi si benn côté mooy comme genre yi rek leen invité wala dara day def nga jaay combat bi def déplacement xam nga di def différence ñun loolu rek lañ si jublu quoi parce que ñun moom làmb duñ ko delloo ginnaaw si kanam rek lañ ko jëmale. mais ñoom ñëwuñu déggoo ma de ay ragal lañ lu leer laa la wax nag. Fils de Balla laa la wax ñemewul Zé. fan nga teg déggoo ma de fu wóor laa la wax laa ko teg. situation nag moo tax mu jël làmb ji. te maa ngi moom du woon sax làmb du woon sax yoonu làmb. est la woon dara Fils de Balla. non déggoo ma de dama koo gën a ñeme. lamb boo ñemewul amoo saay-saay doo dem. a ñeme Fils de Balla. li may def si lamb li may def si déggoo ma li may def si lamb du ko def. man damay tëdd ba une ma du ñu woo ma mbapat séeréer na ma tag kool moo xam damay nelaw moo xam lu may def làmb am na ma taal sama oto dem man ragaluma lool si lamb. mën nañoo bokk entraînement ba jour combat bi jot. ñu ñëw bëre ma jàpp ko duma ko daan ko si kàttanu yàlla. waaw tapet bi mu koy daan de. yàlla lu ma la xanaa moom li muy wax nii bu ko waxee dafa wax lu ko neex ñu ne fi mu jàkkaarloo suñ premier jàkkaarloo. Mm-hmm. ñu ñu dem ñoom ñëwuñu. ñoom dañoo daw ñu jour ñoom jour boobu ñëwuñu ñu dem ñëw lig simple. fa la jàkkaarloo de. non déglu ba mu pare wax la. di ma waa ñu dem premier lig simple bi leen premier tour. Ah. Ah. ñëw ba esat ko ñu ah, bëri dañoo daw signature ba dem bëri li simple dem ñi defaat signature ñun pour ñu duñ dem waaw ah. man la njëkk laaj man maa ko fii sa baal man maa mën a ko demoo man maa ko wax loolu man gànne est-ce que est la parce que contrat la tamit est si moom la moom la moo tax moom mu signé contrat dem fële déggoo lim la wax nee la dañoo demoon làmb mais ñoom ñu fenn ba tey wóoruñu ñun demuñu fenn laa la wax ñoo ngi seen gaale toog di seetlu yaa may dégg déglu ma rek wuy ma ñoom ñoo ngi woon seen gaale toog jour boobu dañoo demoon wuti ji yàlla def ñu ñàkk ñoo ngi koy sant yàlla bu wér comprendre nga mais ñoom jour boobu demuñu woon fenn. non bokkul non du question avance jàmbur ñoom li ñu def moo gën a ñaaw. jour boobu dimanche la kenn demul fenn ñëpp ñu ngi toog seen kër yi. yaa ma dégg ñu woo ñu contacter Zé ne ko pare nga signature bi yónnee ko ay blouson yëpp ñu teg ba war a taal ñëw. promoteur bi woo woo sa waay fii sa baala ne ko ba xam man ngeen départ ñëw mu ne ko noonu non mënumaa ñëw te loolu moom moo jiitu. yaa may dégg loolu moom moo jiitu lu muy wax nii. mais dama dégg ki nga xamante ni mooy fils de Balla. waaw nee làmb bi euh, yéen seen sëriñ. waaw moo tëgg làmb ji. waaw muy Abdoulaye Diop xaas. a moo tëgg làmb ji. Mm-hmm. moom leen tuddee ah? mm-hmm. bu leen neexoon yóbbu ko ko foofu mu daan nekk. xam nga la rek. mais loolu am daa. Abdoulaye Diop tëggul làmb ji. Zé daa am sensu. yaa may dégg mm-hmm. saa yu làmb amee rek ñu tuddee ko sëñ bi yaa may dégg comme Siteu nu mu amee nu mu amee ay bisu 4 avril ak affaire yooyu noonu xam nga day am ñoo xam ne seen bis la am ñoo xam ne yàlla moom moo lay booleeg ñoom comprendre nga boo yëngatu woon si dara nii sax dara rek lu mu xat ñoom dinañ si wane seen bopp wala ñu ñu ñu ñëw am position boo xam fa la ñuy nekkee sëñ bi ñoo ngi koy nuyu au yàlla moom moo ñu booleeg moom comprendre nga voilà mais Fils de Balla li muy wax noonu naan bu ñu ko tëggoon buntu kër sëñ bi sax day ñëw bëre ko day ñëw bëre ko daanu kan mooy bëre bu bëree day daanu bu xeexee day daanu lu leer laa la wax te nag fu leer laa ko teg. da leen koo dégg. déggoo ma de fu wóor laa ko teg. man daal man ah man man man gànna luñ ko dee bu mu toog di wax ñu ko bañ tëdd di nelaw. Hmm. wax laa la wax nag. dégg nga ci ne sax ñi est-ce que tey duñu xeex. non loolu dafa mel ni dafa am ranking bu am seen diggante ñoom. non du cadre ranking ay xale ñoom lambu jàng la. Fils Balla daal Guèye kii dëkk Malika te xale la xale bu ndaw 93. xamul dara mais est ce que taal tamit boo xoolee Fils Balla bi mu am Aliou. tardewul si làmb si làmb 2013 la dugg si làmb calculer ñaata combat la bëre yan champion la daan xamul ragal. non yooyu yaa mais lenn laa lenn lay wax nga bàyyi ko xel. ñoom ñu ngi jàpp ne seen mbër bu bëree day daan fii de laa la ko waxee lépp lu ñu xalaat Fils Balla am na ko ba toog. te bis bu bëreeg général Malika dina ko dóor dina ko daan. man maa ko wax fii mais nekkul du yëg seen bopp parce que boo ko xoolee day dem tuuti nii dem saa day entraîné ba tàng di yëngat yëg yëg boppam di bàq di tuus di fecc yow gis nga ko. mais doon mais doon nga xale moom mel xale moom mel noonu. bu xale moom xale moom mel mm-hmm. xale moom mel mag mënu loolu. dañuy dem ba benn instant doole gone ma nekk si te signature bi ngay wax ne bu amee coow. Mm-hmm. signature man maa man maa ànd ak moom maa fa newoon maa ak moom ak seen beneen promoteur lañ njëkk a xulool dafa ñëw ne deux personnes la ñuy àndal festival boobu ñu dem scientifique man ko ah, que mu moom xaw na wax ay xaw a ñaga sax ak ak Assane Ndiaye. Assane Ndiaye def yëf def yoo xam ne yëf defee naa la dama ko xew mu dégg. waaw du ma ragal dama ko wax mu dégg. mu ne deux personnes la ñu ànd mu ñëw indi dix plus de dix personnes ñu dugg loolu iso yoon la mu ñëw maa ñëw si man maa ñëw si moom loolu indi cool maa ñëw si moom ne ko Assane Ndiaye mu ne ko defee naa mu ne da nga moom festival la ñëw si moom di wax mu ne li nga def du yoon si laa jóge foofu dem sama yoon te làmb la ñun xamuñu ragal ñun géewaay. est ce que loolu est ce que nga xamante ne dafa jël xaalisam nit ko jox la ko. ma juuma sax signature dina jox jot naa jokkante ak moom ay kàddu yoo xamante na ñagas ba ñëpp naan Fils de Balla def nii. mais li mu def ba tax na keroog làmb ji dafa amoon mais ñëpp dañoo si si ñi nga mooy ñaañ signé ba keroog làmb dafa jot a guddee. mais li mu def sa yoon la war nañu convaincre ñu ne trois personnes la ñuy doon ñee ñu indi dix personnes. mais est ce que ñoom dagguñu ticket. non kenn daggu si ticket ñoo bokk fu kenn daggul ticket bu taxoon ma wax ko loolu man lu ma wax dama koy waxaat man loolu la ma yàlla bindee man deret séeréer mooy daw sama aw lu may ragal sama àdduna barke alxuraan lu ma wax dama koy waxaat. mais ñi fan lañ teg moom ñoom ñu ñëwee da ngeen di ndax la général Malika ko kan la daan si arène bi ku nit ñi xam général bu nit ñi xamee kii moo tax ñu xam ko rëg ana booy bëri ñu ngi toog naan général mun ñu wax général ñaata combat la bëri si arène wala kan ak kan ak kan yow si mbëri mag yoo xam siiw nañ si làmb doo ko lim xam mënoo ko lim yow ñu siiw maa daan bébé Molo baa ma bébé maa kii maa ngi moom bokkuñu carrière si làmb déggoo li ma la wax de kii li may def si làmb wuy ma dangaa wax danga may déglu rek ma wax la wuy ma dafa wax danga may déglu ma wax la wax laa lay wax. signature la day neexee non déglu ma wax laa lay wax damaa bëgg nga déglu ma signature boobu noonu muy wax stade. signature day si stade bi. yaa may dégg. waaw même moom bu àndoon moom seul ñoom ñu mat vingt personnes lijjantiwul lool lu sax coow barki naa Muhammad ndax moom képp day lijjanti boppam. yaa may dégg kon ñoom ñoo baaxoo ñoom bu ñëw si làmb tànk que ànd ñoo ful rek seen fit day maas. lu leer laa la wax. déggoo ma de du question affaire de bandi ñii dañ leen a gën a ñemee géew fukki junni yoon Zé lu ñuy sëgg si at mi si géew ñoom duñ ko sëgg ñoom at mi mën nañ see sëgg benn yoon wala ñaari yoon man at mi nag déggoo ma de mën naa see sëgg ay géewi géew Fils de Balla boo ko yeewoon une heure du matin na ko làmb séeréer mbappa du jóg xalaatu ko si àddunaam parce que ñemewul lu metti day sonn lu leer laa la wax dama koo xam dama koo maîtriser yow maîtriser wu Fils de Balla non déglu ma damay déglu rek damay déglu rek déglu ma rek bu baax moo la xam mooy naan Fils de Balla xale la Fils moom ak général bu waaw xam nga li nga wax yow barki Seydina Muhammad moo ko man du ma waxante si làmb yaa may dégg du ma waxante si làmb laa la wax 93 dugg si làmb 2013 93 dugg si làmb 2013 waaw loolu yomb na maanaam comme moom li mu teg nii comme moom li mu teg nii yomb na quoi ñu naan ay 93 ak yooyu noonu su ma neexee ma ni see 96 yaa may dégg wax la rek ñaanal sa bopp jàmm yaa may dégg non du question exemple yaa may dégg du question rek exemple ak yooyu noonu mais ñii boo bëggee dégg-dëgg làmb ji xamal lan lañ si am wax man heure bi may yeewu di dem entraînement sa waay moo ngi koy nelaw man bañ a ko man du ma du ma doyal sax man si géej gi. saa boobu damay entraîné ba ngoon jot ma génnaat déggoo ma ne sangu ba set toog. jàkkaarloo waat affaire bi du question de wax ñun déggoo ma ñun dañoo xew xam nga mooy naan ay ñun daan rëg defuñu ko ndam lu rëy non noo non ma def yaa ma dégg xam nga la moo tax defuñu ko ndam ñun lu gën a rëy lañ jël meilleur lutteur simple lañ jël comprendre loolu déggoo ma de ngaaka ak cuune du ko jël. mais est-ce que ñu ngeen waxee dafa mel ni da ngeen a ko suul. non ko. champion la ndaanaan la dañ la wax sa mbaaxu waayu morom du wàññi dara sa mbaax du dëgg tey ji boo ko laajoon noonu la la koy waxee mais ñoom ñaar dañoo bokkul qualité yi bokkuñu yamuñu comprendre nga. Fils de Balla dina la moo ko dugal si làmb nii volume moo ko dugal si làmb rek ak jàppale bu xaw a dëgër tuuti rek mais dama ne la xoolal général bu Malika yoonam da koo xare barki mu xama du jàppale du dara yaa may dégg yoonam da koo xare ba egsi fi mu nekk déggoo ma de xoolal mu fekkoon Malika dara néew fa nag mu ñëw fekk fa def fa dara si xale bu ndaw géejawaay lu mu dee dee dee booy bu ñëwee jugandoo rek xama ku ne géejawaay di nga ni balagay mm-hmm. yaa may dégg di nga ni keneen ak keneen te du mbëri mag yi Fils de Balla doo koy ñëw ñun dañoo fekk foo xam ni dara néew fa ñu jël dara joojee daf fa dara te instant dafa am dara comprendre nga ñoom ñaar mënuñoo yem si làmb kee xale buy xalal yoonam boppam la. Fils de Balla xaalu yoonu boppam. voilà. ah. déggu ma Fils de Balla xaalu yoonu boppam. Fils de Balla xaalu yoonu boppam Fils déggoo li ma la xam la moo ko dugal si làmb. moo la moo ko dugal ak jàppale rek. moo ko dugal si làmb. boo ko seetaan da déggoo ma de. waaw loolu déggoo xam nga am nit ñoo xam ne dañoo daw fas dañoo daw fas moom loolu dafa daw fas. comprends mais fas yi instant bu ñëwee déggoo ma dañ koy yeew du dugg lu leer laa la wax. fii la la ko xoolal combat maa ngi baytin la gënoon a garaaw coow li bari ku ne di wax dawalkat sereet yi ku ne géej waaye xam nga dawalkat sereet yi ku ne ñëw di wax man caaree laay liggéey usine ndox dañ naan dawal ba noonu génn ku ne ñëw di wax may leen ba làmb jot du ngeen xeex du ngeen bëre lamb ji nu mu demee maa diriger dina wuteeg a dafa ñëw dafa ñëw ngeen ëpp ko doole waaw Mbaye dafa ñëw ngeen ëpp ko doole jaay ko kii noonu waaw combat bu man man man man man man même bu may bu fekkee faruma fenn man daa tooruma mbër ñëw simee ko na wala kii des naa liggéey la fekk mu simee ko taxaw Mbaye simee ko taxaw ah kii kon général Malick ah général Malick combat mu day ñëw jaay noonu bu hmm. yomb la waaw noonu lay demee nag chaque fois nag dina wute de. déggoo ma de saa yu amee mbër laa la noonu lay demee man maay wax ak yow. dama bëgg moom mu xam ne moom lambu ji dina wuteeg lambu ji lambu ji ñun ñoo ko bëgg ñun xale yi waxuma la la wax ñun booy géewaay ñun ñoo ko bëgg xam nga ñoom dana ñoom mafia la ñun ko bëgg ñun booy yi ba ñu barki Seydina Mouhamed lambu lu ngeen représenté bi dégg sa waay déggoo ma la xanaa déggoo xam moom dana moo nekk foofu di prouvé fii sa dafa ñëw nekk ak ñeneen di prouvé mais moom mi ñëw fekk kenn kase si biir koñam ñu prouvé moom kon moom mooy lan moom ñëw fekk fa ñëpp ñëw jëm jëmu xuus si biir Malika te mu ne Malika benn mbër fa nekk ñaata mbër a nekk Malika moom mu ñëw xuus ne parfois damay daan seen bët te noonu lay amee li ma la xam ne du deñ déggoo non saa déggoo lu ma la xanaa dinaa daan seen mbër dinaa cooloo seen biir maa taxaw wax loo ma fi te boo bu làmb ji passé moom na nga ko invité waat moom mu ñëw sa waay kii mënul cooloo suñu mbër wuy ma ni lay moom nañ dem xool ñi nga entraînement yi nga xamante ni mooy entraînement Fils de Balla bu ñu fa jógee dem seetaan entraînement ki nga xamante ni mooy Général Malika nañ dem te ñëwaat. seeti entraînement yi nga xamante ni mooy ñaari ndoy seetaan nañ bu Fils de Balla seetaan nañ bu nga de mu ngi entraîné de <laughs> mu ma entraînement entraînement mbër ndaw de wax dëgg yàlla. mbër bu ndaw entraînement mooy yomb yi noonu rek yi muy def noonu yoo xam ne mu daan mbër bu mag mu lay entraîné. lii lii daanu ñu wax dëgg yàlla. daanaka moom ñu ngi daanu ma. man ma la xanaa. taxaw na champion la. loolu xam waxoon nañ ko moom. mais ma gis kii du ma daan. fan nga teg loolu. dama dañ di ko wax ñoom ñoom neen dañ leen ko dee bañ toog mala ñun dañ leen dee bañ toog déggoo lu ma la wax de. man xaw ma Abdoulaye Diop xaas gis yàlla seet na loolu barki alxuraanul karim déggoo lu ma la xanaa barki alxuraanul karim tele laa ko gis xaw ma ko su ma dajaloon moom mun naa bañ a xàmmee xamalu ma ko du wax si moom lu ñaaw comme lu nit ñi di wax noonu xam naa daal mu ngi defar mu ngi dimbali nit ñi wala dara genre loolu daal dégg naa ko ci mais man lan laa gëm man li ñor gërëm waajur la moom la jébool sëñ sa xam nga ma sëriñam sëñ Moussa Nawel waaw sëñ Moussa Nawel day yëkkati téléphone du toog deux jours ñu ko téléphone woo ko ko xaritam la xaritam dépassé nañu sëriñ doo papaam la leer waaw état bi macha allah mooy entraîné muy entraîner maanaam si lu ko arrangé ak si lu mu mënee xam nga day am mbër yoo xamante ne si nii seen fondement la ñuy defar ba pare dooree dawar seen kaw. bokkuñu man ak moom suñu qualité de entraînement sax bokkul wax laa lay wax damaa bëgg maanaam li ma lay wax nga déglu damaa bëgg ma bu baax a baax a baax. damaa bëgg nga déglu ma bu baax a baax maa moom bokkuñu xam nga mooy naan muy entraînement entraînement mbër mu ndaw. bokkuñu man ak moom te mbër mu mag boo fi gis mbër mu ndaw moo ko fi jëlee. nangul naa ko muy mbëru mag bi déggoo ma de non moom muy mbëru mag bi déggoo li mu wax nee li mu def si arène bi Zé defagu ko garaawul na jël lépp mais dama ne la fii lu mag loo fi gis lu ne lu ndaw moo ko fi yaa ngi may dégg gis nga din mu guddee mhm. bokkut ak nga toog sa saal teg say kii di di jóg non bokkul gone gi mënoon na koo jël teg ko si kawam ba pare toog di ànd ak moom di jóg di dem lu leer laa la wax barki se déggoo ma de làmb ji nii lu tax ma taxaw nii di wax comme nii sax li may wax si làmbu Zé man bariwul man li may jëf mooy gën a bari ka li may wax yaa may dégg mm. mais Zé fi mu toll nii li muy liggéey xam naa ne man xaaj ba xaajaat ba Fils de liggéey ko waaw non dama dégg nga ne moo ngi entraîné looloo ko arrangé génn sa gaale cokki cokki dox ba saal wala yéeg sa oto wala sa moto dem ba saal wàcc xama xaw a tàngal muscle yooyu noonu a yëngal bi ma koy woo dafa ne day dem matinal comprendre nga matinal bonne heure nga koy woo nga koy woo woo nga ko woo nga ko quatre heures waaw mooy noonu man quatre day fekk ma yeewu sangu waajal waxtu wi julli su ma jullee rek yéeg naa bala maa génnaat dix heures jot su ma paree ñëw kër ga sangu sangu bu baax def petit ndékki noppal tuuti demaat saal. te làmb ji ñëwagul. Zé déggoo ma de chaque jour ñoo ngi si loolu ñu jamonoy corona bi ba corona di am lépp ba gaay naan làmb ak yëpp teewul ñoo ngi sàcc suñuy bopp di entrainement yaa ma dégg. di entraînement nekk deux personnes. est-ce que nekkul est-ce que nekkul team bi ay ñoom armée benn ba. waaw ay ñoom guy gi mm-hmm. ngeen gën a sawar di dem ay di seen bopp. non ndeysaan. Zé moom dong bu àndee moom dong lay gën a mën a entraînement ma wax la loolu tey si moom su àndee moom dong lay gën a mën a liggéey lu metti parce que lu mu def danaan doyul yaa ngi dégg wax ji su àndee moom dong lay gën a mën a liggéey laa la wax sëñ Ablaye Diop xaas nag ñun moom moom lañ am. moom la ñuy tiitaroo mooy suñu drapeau fu ñu jooyee fu ne mu fonk mu feral ñu say suñu rangoñ comme ni ko Zé di waxee rek suñ sëriñ la suñ lépp la xam nga ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant xam nga di ko woo si la moom sax kenn du ko woo moom boo ko woowee bu ñëw boo ko woowul mu ñëw saan ndax xam nga dafa ñàkk ñaan di ko ñaanal gudd fan nag ak wér yàlla jubale ko ak soxnaam comprendre nga ñun loolu lañ koy ñaan parce que ñun moom lañ am quoi te moom la ñuy tiitaroo du dëgg waaw ñun moom loolu lañ am waaw te mooy loolu daal voilà nañ liggéey de billaay li may gis nii mënul daan see. leer la wax mafia la ñam dañ leen xeex ñam que mafia la la ay ñoom ay armée ay ak ki nu Alioune Seye Alioune Seye deux xam Alioune Seye Junior man tam man sama gars passage ay Pape Thiam non kooku lu ma ko waxam intéressé ma li ma intéressé ak sama gars non lu ma si wax hmm. non wuy ma doguma la foofu noonu Alioune Seye deux maanaam boo gisee sax lu gën a yoo ko tax ndeysaan moom côté boobu noonu comme ay làmb xam nga comme xam a mbër xam nga làmb dafa fiir xam nga tey jii mën ngaa dëkk yëmbal di entraîné jee géejewaay xam nga li ma la làmb dafa xaw a doy waar moom par exemple ñun duñ toog sax wala bay entraînement wala dara ñuy débat si làmb wala dara non non ku dee nag ak sa bàmmeel yàlla rek moo tax may wax yaa ma dégg ñun dañoo yor habitude boobu xam lañ moo ñu boolee heure entraînement su jotee maanaam dañuy yeetante ànd dem mais est-ce tamit ñëw na seen biir que desewul xaw leen ko parce que ñu ki mu nekk mbër nga nekk mbër. Mhm. mën a di waxtaan ci làmb. waaw wax ci lu parce que côté bi mu féete la moo tax duñ mën a wax si làmb parce que am na ay adversaires yoo xam ne ñoo ngi géejawaay. Mhm. yaa may dégg te G moo ngi ga mhm. armée moo ngi benn baraat. comprend nga lu mu yàgg yàgg armée dina bëre ak mbëru géejawaay. lu mu yàgg yàgg G day jël mbëru géejawaay comme ni mu demee nii rek. comprendre nga looloo tax maanaam ñu si sori te tamit duñ bëgg di si débat xamali ma la noonu la demee nag voilà mënut ñàkk comprendre nga mais xam nga kenn ku si nekk fi mu nekk rek man xam nga yëmbal ak benn baraak Malika xam nga benn la boo xoolee moo géejawaay sax benn lañ mhm. yaa may dégg mais tey ji maanaam fu ñu féete la loolu jamonoy mbapat la woon du tey kon xam nga loolu lu yàgg la mhm. comprendre nga làmb maanaam bu defarul rek warul yàq mhm. Alioune Seye de xam nga rek àdduna du yàgg ban bëreeg moom day am bis ñu gunge ko te tamit bu amee bis ñu koy gunge teewul champion bu ne dinañ ko fekk te teewul dinañ ko jox sa wàccuwaay nan la ñëw respecté la jox la cër nuyu la xam nga sagala te tamit di ko ñaanal wér làmb ji muy jub xam nga moo xam combat bi mën doon ñoo koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko si ndam waaw. waaw lu tax nga ne doo ci bugguma cee wax ndax man li ma intéressé mooy sama mbëru koñ ku si mel ne Marley de dafa am combat yaa yàlla may ndam Pape Thiam. yaa may dégg ak sama xarit. ak sa lan moo ah. ñun daal di feebar euh, la xanaa. yow déggul yow maar xanaa maar di jur rëyul mais bu ñëwee jaaxal ñëpp loolu yàlla moo ko def si moom. kooku la loolu yàlla moo def damay ñaanal dem bu yàlla may ko ndam si combat bi mu jëm. daa dégg Pape yàlla may ko ndam combat bi mu jëm John Kara am combat Modou Mangara ak Thiaw Boy Lawbe yàlla may leen combat ñoom ñëpp mbëri ay ñoom mbayteen gaa yëpp Pambaay maa ngi koy béggee fi mu nekk ana ko gënal fii. Oh, mu nekk fa nekkin bu rafet. Mm-hmm. ku baax la nag wax dëgg yàlla démb si guddi lañ mujjee déggoo te bëggee ñëpp nag yaa mu gën a xam ñun daal géewaay lañ neexee yàlla si borom. mais ma déggee ni ñuy waxee dafa maa gën a liir làmb ji foofu ñu bind ñu ñu liir ñu lettre ba mu jeex. baax dañoo tëb ay pages. man sans page daa liir. xam lépp lu si nekk eh, dégg kii liirul dara kii heure bu mbër mi dem entraînement moo ngi nelaw non damaa bëgg ma rek damaa bëgg nga déglu ma rek kii heure bu mbër mi dem entraînement moo ngi nelaw da koy yee réveil la koy réglé loo réveil naan ko réglé ma sa réveil foofu bu sama kóol doyul nga réglé ma ko nga yee ma kii day yee mbër mi non buñ naxante non damaa bëgg nga wax cadre maanaam lambu yaa may dégg kii heure bu mbër mi dem kii réveil lañ ko bàyyiloo gàlle réveil comprendre bu réveil amee bu mbër mi yee xam mbër mi sax léeg-léeg day xaw a yee ko yooyu waaw parce que moom li muy nelaw daa bari yaa may dégg mënu yaa ma dégg mënuñoo yem nag si lépp nag laa la wax billaay wallaay taalaay man mbër mi xoolal ñoo bokk fu ñuy fanaan maa moom ñooy tegante bopp ba suba déggoo ma de bokkuñu man déggoo ma de mbër mi saa yu xoolal moom moo may yee mbër bi kan lay fanaan lu a garaaw kan lay fanaan kan lay déggu ma fanaanuñu man moom kan lay fanaan bu fanaan loolu yow moom yow kan lay fanaan kooku xaw ma ko kon kay yow xam da ngaa xam xam nga moom ñooy fanaan hmm. wax na la ko démb maa moom ñooy fanaan bu dégg bëccëg dëgg la ñoom daje nañu ñoom dinde seen koñ ñu seen koñ la ñuy entraîné man bañalu ma ko loolu ngeen daje nañu si dinde du benn ñaar ñun ñu ànd seen mafia mafia kara ay ñoom Aline Sey yi ñoom ñu daje ak ñoom mu ngi nii ma wuy ma dëgguma la ma eh. fekk entraîné moo fi indi damaa bëgg nga déglu ma moom Aline laa la wax suñ grand la maa ngi koy nuyu di ko jox moom tamit Aline Sey li ma déglu ma ma bu baax sa waay ok bu ko fàtte dégg nga dama ne la laa la wax ñii ñoom moom rek Fils de Balla moom munul ànd ak keneen noo déglu ma rek noo déglu ma rek damaa bëgg Alioune Seye waaw rek nga dikk ci Alioune Seye suñu grand non non de maanaam du question de nga yàlla mooy boole ay doomu aadama mhm. xam nga Alioune Seye numéro 2 yëmbal la dëkk tam sa waay bu amee bu bés non non non non du indi benn problème nag pour ñun suñu côté mhm. non nice amuñu problème boobu noonu comprendre nga mais dama ne la laax maanaam lu tax ma ñëw rek tëb tëb indi Alioune boobu noonu maanaam xam boo nekkee mag jox say rakk cër jox say mag cër ku la gis rek mën na laa jox cër te tamit mën na laa delloo sa wàccuwaay quoi du dëgg te noonu la demee moom boo gisee rek nga xam ne kii baax rek ngay gis si kanam ñun buñ ñëwoon di def dara sax yaa may dégg moom mu ñëw fekk ñu si bu nee ni ah booy nii woon ñun dañuy bàyyi quoi parce que respect bu ñu ko jox la comprendre nga waaw noonu la demee nag mais dama ni la dini yaatu na ñoom li ñu am moo doyul moo tax ñu déplacé wu géej waaye di ñëw ba fële dañ leen di xam ne dañuy wut si doole yaa ma dégg ñun nag dañoo dem ba foo xamante si doole fa la nekk ñu dëkk fa. déggoo ma de muy Malika. saa yu génne saa yu génne uy ma saa yu génne uy ma uy ma saa yu saa déggoo ma de foofu saa yoo gisee din wàcc yu bees ñu dagg ko bu dee dix bu dee dix ñoo dagg wi ñoom dañuy ñëw fekk ba din yoo xam ne dañ koo liggéey ba mu wàcc ñu fay rey seen bopp ba lamb du jub si ngeen jaay fa tooy wala ngeen dog est-ce a ngi xalaat loolu. tooy yow tooy xam nga kan moo koy def si lamb wala dog. ku minul entraînement. <laughs> wala koo xam ne yaramam yow loo ko teg déggoo ma ne lu diis du ko attan. lu leer laa lay wax gone gi loo ko teg mu àttan ko loo ko teg mu dégg ko. naa mu Muhammad Zé dafa maanaam du question ay faral war a dara de man dépassé naa fu may faralee Zé man suñu ma laajee làmb laay wax si moom. tey ji bu ñu tëddoon man ak moom entraîné wul man damay toog déggoo ma de mu toog wala mu taxaw ma jaar ko foo xam ne kàddu yu jégganiwul ma teg ko si côté mais depuis boobu ba léegi ñoo ngi ànd ànd boo xam ne wax dëgg yàlla zéro faute ci côté boobu noonu. ñun daal su ma déggee ni ngeen di waxee mooy maanaam làmb di ko jël nii waaye Fils de Balla taxu leen moo nekk seen kanam. sa maanaam ñoom li leen ñoom ñoom wax naa ko sax si biir wax naan ñoom fu ñu ko yombalee ni man noonu laa ko yombalee man xaw ma ñeede mais man sama bopp man billaahi wallaahi wa taala sama diggante yàlla noonu laa ko yombalee man man làmb ji daf ma leer laa leer naññi. sawaay dama ne kii mooy wax loolu mais mbër mi du ko wax de déggoo ma de kii moom mooy wax loolu mais mbër mi du ko wax dama dama déglu dama bëgg nga xool la baax sànq moom neen lamb yi yi daf ko leer nañ moo wax loolu waxul loolu moom moo ko wax comme am naa wax ma ne ko man tamit lamb yi ma leeree déggoo ma de dégg naa bu baax sax loolu ma sawaay eh, damaa bëgg nga xam ne buñ naxante kii buy kii du ànd ak mbër mi di yow fajar di entraînement ñun déggoo ma de mbër mi dañuy ànd ak moom fajar. saal contact non déglu ma kii yow kii boo ko gisee ni muy toog ak état bi nga xam ne du liggéey kii du ànd ak mbër mi kii déggoo ma de bu taxawoon dil sax du yéeg dox yéeg dem ñëw du ko def. gisoo tànk bokkuñu déggoo damaa bëgg nga déglu mu baax non non mënu ñëw dégg amul caas léegi la ma ma amul caas léegi ma laaj la léegi ak man. de lu mu def wax ma ko fu mu dem. waaye mbër mi téléphone la lay teeloo rek. la mooy bi mbër mi téléphone am la koy teeloo rek man damay déggoo ma de. mbër mi day liggéey lu mu liggéey déggoo ma day xeeb ma ñëw day dolli force déggoo ma de lu mu metti metti fu mu gën a mettee fu laa koy fekk gën ko faa teg lu metti ñoom ñaar bokkuñu di question lamb ji maanaam dañ koo teg foo xam dañ koo xeeb wala dara xeebuñu ko de champion la ndaanaan la mais dama ne ñoom ñaar yamuñu sa waay li ma bëgg man mu xam ko mooy mooy lenn. Mm-hmm. ren ren ko du neex. déggul ba da ngeen jóg dafa mel yow li ma la ko kon dafa mel ni déggoo ma. ça va yow duy ma dégg ma baax kii xoolal ma Malika Malika ren du doon renam. yàlla baax na yaa ngi may yow. yow rek laa jàkkaarloo dama bëgg nga déglu mu baax moom mu dégg ma. ko ren général xaw ma ku muy daan mi doon fii sa Balla man maa la wax la man gànna fii laa taxaw bi wax la ko. lépp da wasaare lay xewee. kii day <laughs> soobee kii mënul tas Malika laa la wax mbërëm mi tas Malika. non yow Bulldozer moom xool dégg ma rek laa bu téye sa balla sonal ko. dégg ma dama ne lamb ji la ma lamb ji laa non ma lamb ji laa la wax déglu mu baax lamb la wax lamb ji. Ah. mën nañoo bokk entraînement ba jour lamb ja mu ñëw ñu bëri ma daan ko. bu ngeen amoon kàddu yu mujj lu ngeen tàggatoo woo nga woo waa Malika moom ak ñi leen di jàppale waaw woote li ngay woote de woote li ngay woote de bi ma sa waaw ñoo ngi ñoo ngi sant yàlla rek xam ñoo ngi rafetlu tamit kàddu yi bu fekkee tamit wax nañ fi loo xamante ne si nii kenn gis nga sa bopp ñoo ngi jégalu waa xam ni maanaam làmb la rek waaw parce que ñun li ñuy def nii jubluwuñ si dara loolu maanaam jaay làmb ji xam nga xam nga ne làmb li la manqué waaw làmb dafa rafet da nga doon gis signature mu nekk signature bu neex mm. ñëpp ci làmb jooju ñëw ñu dem seetaani ko mais léegi ba moo ci wax mu ne du euh, amul lu may wax ak moom waaw comme noonu la rek comme li ma la wax sànq rek si commencement bi ñun dañoo nekk xale yoo xam dañoo dëkk ko gis ñu kenn. comprendre nga ñun booy ñun comme suñu waa mafia bi ñooy jaayante def si mbër yi xam nga ñu koy sant yàlla nag bu baax parce que depuis boobu ba ñu ko commencé ba léegi yàlla moo ñu si suturaal. comprendre nga waaw di di jégaluwaat tamit kàddu yi. comme li ma commencé bu fekkee tamit nag maanaam kàddu yi wax nañ fi loo xam ne tegganewul xam nga. ñoo di ñaanal Fils de Balla jàmm di ñaanal waayam ci tamit jàmm comprendre nga parce que rek ñun moom waaw ñun li ñu gën a yëkkati kañ maanaam ñu jaay làmb ji xama bu ko defee seen promo mën a jug yaa ma dégg bu ko defee làmb maanaam ak fi mu toll nii ñëpp di ko bàyyi xel ak di ko déglu parce que làmb dafa bokk suñu culture xama tamit waaw di di jégaluwaat ñëpp daal waaw di wax mbër mi na am jàmm xama di ñaanal armée nag di ñaanal armée armée bu benn b maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam si combat bi mu jëm nii moo fëgg koy ñaanal dugg ci si kattanu yéen non dégg ma lool lool lool li ñu ñëwaat la loolu après la mais fëgala liggéey nañ du koy daan bu yàgg yàlla baax na comprendre nga ñun dañoo yónni yàqamti ñu nag moom maa ngi koy dégg tas <laughs> ma rek ko rek <laughs> yàlla baax na essence bi kay wax kàddu yu rafet na trop wax dëgg yàlla ndax lamb lii la kaf ak ree la nekkul cadre ay dóorante wala dara saagante bu lamb ji jeexoon tey bu ñu nekkee essence ñu bokk fu mu toog noonu lañ seeg tey lii mooy jaay lamb tey ñaanal kenn tamit Aziz Ndiaye am na doole si làmb ji mu ngi jàppale nit ñi. nañ ko ñaanal Zador jëm si kanam. ak waa Géejawaay Dóor. yaa may dégg Géejawaay non dama non Zador maa doon liggéey bunti. wuy ma ah. Zador ba ci dem laa ko maa doon liggéey bunti. mu ngi nii moom ah. Malika Aziz Ndiaye man maa koy liggéeyal ay buntam. dégg nga loolu moom Malika la toog ñu doon jàpp si Zador man maa doon liggéey bunti bunti maa ko monté normal menuisier métal ñi ñaanal ko Zador jëm si kanam waa Géejawaay Dóor maa ngi leen bëggee bu baax ñaanal leen ñu jëm sa kaw sa kanam Géejawaay marché Njaareem rond-point Mor Fadam Pàq Baye Moussa marché Bes Alba Sëñ Assane amoo siis koñ juboo diisoo xale cité ñëpp maa ngi leen béggee di leen woo si wax leen seen làmb la fii sa baal ma xew la Demba Kanté Madia Sarr Alpha Pël Ousmane Mag waa Dóoru Alpha Sarr ñoom bàyyi laat boobu maa ngi leen béggee wasalaam. loolu sa baal. fii dama koy wax mu yokk cere doole ñeex rek géew amul ragal. dama du ma ànd ak tapet. sa waay ñeexam jeex na cere jee ba des rek waa Seras a wér. xam nga cere ji moom bu ñeex mi jeexee da jël ndox rek xam xaw koo wësang yooyu mu xaw a tooy. ñeex mi jeex na yàgg na. gis ngeen ni lay defee ni lay woo ñi nga xamante ni dañoo bokk ci wala woo ñi nga xamante ni ñooy ànd comme ni ma koy waxee bàyyi ma ko ci tëggkat di leen wax na nag beneen yoon xam naa ne xam naa ne gëjoon ngeen ñu gis waaye da dañoo nekkoon ci làmb nekkoon ci li nga xamante ni mooy actualité yi loolu moo tax ngeen xawoon gis waaye jàmmaarloo bi jógee incha allah di wax na nag Marley maa ngi lay woo mais ma laa jot su ma la woowee dee ma jël kontaana naa bu baax ak sama benn gaynde dama ko fàtte volcan xarit Mar hmm. su mafia la bokk yaa ma gën a xam. Eh, buuba suñu mafia dëwru yi buuba ñu ngi ñaanal yàlla. Ah, ma vélo ngeen xoolal wuy ma. non kii siwul na xawaar. mooy mafia vélo ngeen ma de ñun caara yi la ñuy tiitaloo hmm. ak yëmbal parce que ñun moom lañ am. mbëri mi bu amee combat dañuy def billaay wallaay combat bi nu mu demee la nii rek mais lu garaaw la gars yi doon def avant stade open press bi rek lu garaaw nga doon gis xam mais nag dara sant yàlla rek di ñaan yàlla suñu borom na xam nga mbas mi jóge fi xam nga tamit ba nga xam doo dégg dara si dëkk bi parce que ñun Sénégal jàmm lañ xam quoi parce que ñun xamuñu leneen lu dul jàmm kon day ñaan yàlla chaque fois rek suñu dëkk bi yàlla def fi jàmm xam nga tamit di jaale képp koo xam ni sa mbokk duggoon na si gaal yi di jéggi parce que ñoo ngi leen di jaale bu baax di leen masaw parce que ñun Sénégal boo xoolee boo yëpp jeune yëpp lañ gën a bëgg mooy que ni maanaam dem dóori waar ñëw teral seen waajur yi wala dara mais du caagi ni maanaam def lu bon wala dara moom moo leen doon dugal si dëkk jàmbur yooyu noonu mais nag nan delloo seen xel si yàlla te xam ne yàlla jéexul ay xale lan ñàkkuñu dara comprendre nga di leen jaale nag seen bépp mbokk boo xam ne dugal na si ndox mi des si rek ñu ngi leen koy jaale bu baax di leen ko masawu surtout maa waa Mbour xam ñu ngi leen koy jaale bu baax a waa Louga xam nga maa ngi nuyu sama mbokk yëpp waaw ama fay nag ñu jàpp si làmb ji bu baax séeréer yi moom du ma leen woo ñoom ñoom dañuy ñëwal seen bopp. ndax Zé moom foofu moom foofu moom. man am dëkk foofu moom xam nga wuy ma. Zé am dëkk parce que séeréer saa yu ñu kontaanee suñ saa yu demee bay tëdd rek. Zé lu bon bon même dee benn guddi sax bégloo na leen ko. dañoo yàqanti Zé di dugg si dëgg boobu ndax Zé dafa déggoo ma dafa mën wuy bëgg de barki yeneen waaw gis nga noonu lay def di leen di leen jox daje ba beneen yoon incha allah. incha allah ci jàmmaarloo Adama jaajëf.